mel ne jamono bi ñu toll ñu bari dañoo gag ñi daan jiitu di wone aw yoon sax dañoo gag ba xamatuñ fu ñu jëm nga nekkoon ne tekk taxaw gestu suñu gannaaw xool fa nu dana ci baax lool sëriñ Abdul Ahad radiallahu anhu daf daan wax ni dafay wax ni murit dafa war a yor jikkoy ëkk te bañ a yor jikkoy xob dafa wax ni jikkoy murit dafa war a yor jikkoy ëkk te bañ a yor jikkoy xob ëkk nag bu ko waxee dafa am lu muy tekki ëkk dafay dëgër fi mu nekk ba nga xam ni lu dal ci kawam dina gaañ te it ku demoon ba jubloo déjji ak ak it lu ci bari mbooloo ñooy jàppalante ñu am doole yor ay baaraam yi sonn ci lool dal ko mën a déjji loolu dafa am lu mu jubloo jàngale waaye mu ne jub mënatu wërta yor jikkoy xob xob nag mooy loo xam ne bu ngelaw ñëwee daf koy jël rek ngelaw lu ñëw rek mu ànd ak moom daal di te mu ne ki yor jikkoy xob ba ngelaw lu ñëw jël ko yóbbu mën na koo yóbbu ba dugal ko ci kàmb goo xam ni ngelaw loolee ko fa dugaloon sax bu ko fa bëggoon a génne waa du sotti mu mel ni loolu yi mu wax moom la sëriñ Mbay Jaxate wax ni murit bu dëggal dafay dog lëf nde lëf du ko dog day cor lëfit dal di waa koy wéy nde lëf du ko cor mu mel ni loolu lépp dañ ko jànge ci waxi sëriñ bi rek sëriñ bi dafa wax ni wadum ala alladi alayhi tasbutu law jaaka al mawtu kama xat sabatu mu ni li nga xam muy dëgg nga nekk ca na nga ca way ak doonte dee daf la cay fekk waaye loolu sëriñ bi wax it mu mel ni moom itam daf koo jële ci wax bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit du nekk li ñuy wax immaa immaa nag buñ ko waxee mooy koo xam ne al toppe lay doon fu mbooloo mi jëm rek mu ànd ak ñoom moom la wala fi tudde ma réere loo nga xam ne bu ñu réeree jóg rek mu réer ànd ak ñoom mu mel ni loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax suñ borom moo ko jëkk jàngale ci alquran ni yaa ayyuha alladina amanu ida laqitum alladina kafaru ida laqitum fiatan fasbutu fay digal jullit yi ne leen bu ngeen demee ba dajeek ab kuréel ci ab guerre na ngeen sax dir téye seen bopp bu dëgër te jamono bu ne ci guerre boobu ci lañ nekk léegi daa mat di xam mat di xam ni jamono bu ne ñu ci ab guerre dafa doonoon nag guerru ngànnaay jamono bi ñu toll mu doon li ñuy tuddee al ghasbul fikri mu geeru xalaat geeru xel jamono bu ne li nga nekk am na ñooñ buñ sañoon nga dal di fay jógee ni mu gën a gaawee te bàyyi ko waaye loolu lépp sax tekkiwut ni ñooñee di la génnee ci li nga nekk dañoo jàpp ni lañ nekk dafa gën am na ñu jàpp loolu waaye ñu bari nag lañ jàpp xam nañ ni baaxul waaye li ñuy wax bukki bu lakkitaat day bëgg morom dañuy xam ne lañ nekk wérul ñu bëgg kenn bañ a nekk ci lu wér am na ñoo xam ne noonu lañu lay jëlee ci li nga nekk ci léebu ca dañu nekk mu mel ni kon tànn gii nu tànn al ibaada ak xidma maanaam Sëriñ Tuuba Abdullahi la wa Xaadimu Rasuuli ñu tànn war a jàngat ba xam loolu lu muy tekki lu muy tekki da ci jëkk rek mooy ñu xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni baat bi gën ci bu ma wax man maag yonente yi ma jiitu woon mooy baatu laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah baatu laa ilaha illa allahu rek mooy baat bi gën ci bu ma wax man ak yonente yi ma jiitu woon mu mel ni kon sunu borom ci alquran day wax ni ilayhi yarfau lkalimu tayib ilayhi yasaadu lkalimu tayib waaye nag wala amalu saalihu yarfau lu baax baat bu baax bu ñu wax bu ne dafa yéeg jëm ci sunu borom bu dee jëf ju baax sunu borom moo koy yëkkati mu mel ni kon baatub laa ilaha illa allahu ay wax la waaye mooy wax jiggan ci ju defi wax léegi nag baatub abdullahi wa xadima rasulihi dafa ñëw ngir jëmmal si baat yooyu ñu doon wax laa ilaha illa allahu léegi lam lam soxla mooy ku jaamu yàlla te bañ ko bari dara waaye muhammadun rasulullahi lam soxla mooy nga topp sunnaam te bañ ko jaxasik dara kon ñu xam ne abdullahi wa xadimu rasulihi dafa ñëw ngir jëmmal si baatub laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah léegi dafa doon ay wax lii ñëw di ay jëf wax jële mooy wax ji gën ci wax waaye kon jëf ko it nag mooy jëf ji gën ci jëf yi loolu lu ma sa xam ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah nit ñi nag dañoo baaxoo bu ñuy xamle nit dañuy wax ne diw doomu diw loolu moom nit noonu la baaxoo waaye sunu borom moom buy xamle lëf du ko xamle ci nit diw doomu diw moom bi muy xamle boppam dafa wax rek mooy kan innaniya ana allahu laa ilaha illa ana ni man nii maa yàlla amul benn buur bu dul man moom bi muy xamle jëmmi boppam dafa wax rek mooy kan waaye bi muy jàng bi muy xamle kan mooy yonent bi néewul Muhammad doomi diw ak diw waaye dafa tudd aw turam xool liggéey bi mu koy liggéeyloo mu wéer ko ci Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah wa ma Muhammadun illa rasul Serigne Touba it bu ñëwee yoon woowu yi la jaar yoon woowu suñu borom jàngale ci alxuraan ndax alxuraan dañ nu mu waxee am njàngale la léegi nag ku bëgg a jàng mbaa nga bëgg amul dégg fokk dangay bàyyi xel ni muy waxee ngay xool liñ boobu nga di ci jéem jaar Serigne Touba bi muy xamle boppam dafa wax moom mooy kan nu mu ko xamle néewul de moom Serigne Touba doomi diw la déedéet dafa wax ni Abdullahi la wa xadimu rasulihi dafa ñëw man jaamu yàlla laa di surgab ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man laysa yazaalu yahmadu malikahu l abdul xadimu ahmadu ca tasawudu sira ba muy wax dafa wax ni jaam bii nga xam ne du dañ di sant boroom te mooy ahmad di al abdul xadim man la waxee al abdul xadim di ahmad fii mu dikkaat ni qaala al xadimu al abdu wa huwa ahmadu wa rabbahu bila intihaain yahmadu daal ni jaam bii di liggéey yonente bi te moo di ahmad te du dañ mukk it di sant boromam mi ngi wax fee mu ne yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu li xar baax mooy bari na lool fu muy tudd baatub alhamdul xadim xaalal xadimu yaqul alhamdul xadim waaye jamono bu ne bayit ba mu ko waxtee bu ko waxaatee fii day maanaam mi day doon benn ba noppi ni mu ko waxee wute loolu ci lu xar baax la ci waxi sëriñ bi yaqulu man laysa yazaalu yahmadu malikahu l abdul xadimu ahmadu fii mu ni qaala alxadimu l abdu wa huwa ahmadu wa rabbahu bila intihaain yaxmadu fi mu ni yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu loolu ci ay xar baaxam la bokk mooy mën na ko wax fukki yoon te saa bu ko waxee day bees ci yow yoon wu yees lay doon wax na ne man zanna anni man zanna anni gayru abdillahi wa gayru xaadimi nabi fa saahib képp ku ma jorte ma doon kudul abdullah ku dul jaamu yàlla waa nga jorte ma ku dul surga bi yonente bi rek njuum nga loo ma jorte lu dul lii rek njuumte la wax ni fustu bi kaw nii abdahu xadima suñ borom te xel na ma ci nekk gi ma nekk di ab jaamam doon it kuy liggéeyal yonente bi xadima li abdihi alladi hawa taqdima di liggéeyal jaamam bi nga xam ni sunu borom daf koo jiital mu ne loolu rek ak taxele ci moom ak taxele ci man ma nekk di abdullahi doon xadimu abdihi mu dellu wax ni wajjahtu wajhiya ila al ilahi axdimu abdahu bna abdillahi sama sama lépp jël naa ko jox ko yàlla ànd ak nag di liggéeyal jaamam bi nga xam ni mooy ibnu abdillah naawiya nafi aqrabin wa ajnabi waaye nag ma yéene cee jariñ ku ma jege ak ab jàmbur bu mosari maal xadiisi wa ajalil kutub wax na ni man danna annahu yakunu abada yurdihi billadi ka xidmati bada nafaytu dannahu bi anni alxadim bima wana am mislihi kullu xadim foofu moom li mu wax foofu mooy ku jort nag ne mën nga koo liggéeyal façon liggéey bu mel ni bii ma ko liggéeyal sa njort lu lii nga jot dàq naa ko xamal naa la ni la nii ma koy liggéeyale képp ku jug di koy liggéeyal rek lottu nga ci liggéeyale ko du ma tax xam loolu it xam ko lu am solo fii mu ñëw ñaanam gépp it mu tënk ko ci bëgg doon loolu yi muy wax wajjih li allahumma fawqa ma urid fi lbarri walbahri wa jannibni almarid ta akuna xayra abdin wa xadim moom yàlla yàlla nag ma may lu kawe li may bëgg ci jéeri ji ak ci géej gi te musal ma ci seytaane ndax ma mën a doon sab jaam di liggéey yonente li muy ñaan lépp lépp mooy naa doon jaamu bi yàlla di liggéey yonente kon dafa mel ni moom bi muy bëgg a doon jaamu bi yàlla bëgg di liggéey yonente bi amul dara lu mu teg ci gannaaw loolu loolu mooy def hadaf bi loolu mooy li gën a rëy ci lu mu soxla mooy nekk jaamu bi yàlla nekk xadimu rasul xaj na ñun man na noo bëgg a doon taalibe Sëriñ Tuubaa waaye fekk na dafa am ñu nu jiitu woon ci taalibe gi ba muy naqari ñu nekkoon ci far yàlla dugal ay bànneex yu rëy fekk leen ci léegi bi loolu xasee am nit mën naa ñëw bëgg a doon taalibe Sëriñ Tuubaa waaye si taalibe mën naa am garanteewul ne loolu yee waroon a garante ndax kooka ba muy ñëw di soobu si amul lenn lu mu teg ci kanamam lu dul bëgg ngërëmul yàlla ak fas yéene doon taalibe Sëriñ waaye gannaaw bu ñooña àndeeg sëriñ bi far teraanga yi àdduna fekk leen ca mën naa am nit ñëw di dugg si ngir teraanga jot te bu boobaa bi yéene ji sellul lu bari day daal yàqu ci dafa tax na jóg waaye sëriñ bi yéene mooy nekk jaamu yàlla di xadimu rasul amul lu nekk ci kanam dana ñëw ci kanam moo tax sëriñ bi doon na waxtaan ak murid yi ne man de nit ñi dañu ma bett ma wëlbati ko bett leen ñu wëlbati ko bettaat ma ma wëlbati ko bettaat leen te dootuñu ma bett bu mukk daal di wax ne la ñu ma bett mooy ba may jóg di jëm ci sama borom séntuwu ma woon picc topp ma óoma lu may geesoo gis mbooloo ci sama gannaaw waaye itam may itam may may itam la ma leen bette mooy ba ñu may topp yaakaaruñu woon fépp àdduna ma bett leen ak àdduna ju mat sëkk ñoo xam dañ ko wuti fenn daani waaye ñoom tam dañu ma bettewaat nag mooy dañoo yem ca àdduna joojee ba fàtte yàlla ma leen taxoon a jóg daani waaye may itam la ma leen di bettewaat yi mooy dootuma seexal kenn di ko tofal mbooloo waaye ku jub ma ne ci sa jiba ku jub rek ma ne ci sa jiba foofu la mujj def ci yàlla ku jóg mën na ci sa jiba ba tey buñ xoolee dundam bépp ci ñaari jéego yi rek lay dox muy nekk abdullahi nekk xatimu rasulillah kasbiya tawxidun wa matxun lin nabi li ma waxoon léegi ni abdullahi dafay wund rek laa ilaha illa allahu gën naa leeral ci bayit bi mu wax ne kasbiya tawxidun wa madxun linnabi alayhi taslima gafuril muslimi sama paam def lépp mooy tawxiid wéetal yàlla ginnaaw bi ma ko wéetalee ba yàlla di yàlla tagg yonente mooy ñaareelu tànk de loolu wax ne diine ya tawxiidu ilaahi naasi sama diine mooy wéetal borom nit ñi bi sunnatil maahi ànd ak sunna sunnatil kon mboolem xaside yi yi mu bind lépp génnul ñaari baat yooyu muy baatub laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah lii ñëw di ko firi si ci jëf muy nekk abdullah nekk xadimu rasulullah moo tax daanaka xasida gu mu doon bu ko tàmbali bu ne bismillahi irrahmani irrahim ni alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam la jëte julli ci yonte saa bu ne bu bu bu sante yàlla rek julli ci yonte la jëte alhamdulil xaqil mubin man kawnuhu li yabin ala alkitabi almustabin maa jamii an yani daal ni ahmadu rabbi alazim ala kitabihi alazim ñu ko waxee hamdan kasiran laa yarim salliya li ma jublu wax lépp rek mooy saa bu sant yàlla rek dafay daal di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba ca bu ñu xoolee xasida yi xasida goo xool rek dafay amee maanaam laa ilaha illa allahu mbaa mu amee maanaam muhammadun rasulullah am na xasida gum tënkee min allawhil mahfuz waaye xasida googu boo ko xoolee lépp dafa amee maanaam laa ilaha illallah mi ngi tàmbalee ci min nii li man lahul wujud wal xidam hamdun wa sukrun wa taqabbal al xidam te sëñ Mad Lamin Jóob daga na di natt bi ci ci minal maskiya tel xawaarix al makkiya di wax ni benn bis damaa nekk ci béréb bi ñu doon binde di xalaat munkar ak nakiir di xalaat seen tontu ba def ci bayit woo xam ne sax dama ko def ci sama xel waaye génnewuma ko bayit woo mooy damaa wax ci sama xel ni layta shi'ri maada yakunu jawaabi in ataani fi turbatil malakaani muy aka neexoon ma xam lan laay tontu su ma demee ba dugg ci sama biir bàmmeel ñaari malaayka yi fekk na fa aka neexoon ma xam la may tontu dafa wax ni dama xalaat di leen xalaat di leen xalaat ba def bayit woowu ci sama xel nee na booba mi ngi taw waaye ci biir taw bi la la ndaw xuus ñëw ni sëriñ bi nee na dafa soxla kenn ci yéen nee na bi mu ko waxee ka féetee bunt ba rek moo jóg dem wul ji nee na sëriñ bi jox ko xasida bi mu tënkee ñu ne la ma foofu ni ko lii mooy tontu ñaari malaayka yi ci bam bi waaye nga xam ne tontu xel waaye li ma jublu wax mooy ba ci xasida yi bu ci amewul maanaam laa ilaha illallahu dafay amee maanaam muhammadun rasulullah xasida googu mu tënke min allahi mahfuz dafa am geneen geneen gum tënke min allahi bi iznihi lii léegi mi ngi ko tàmbalee ci muhammadun salla alayhi llah maanaam xasida googu dafa amee maanaam muhammadun rasulullah ñu tolloo nett nag min allahi mahfuz bi amee maanaam laa ilaha illallahu bee amee maanaam muhammadun rasulullah léegi mu seexale leen bu ci ne fukki bayit la ak ñett daanaka sax xasida yëpp nooy demee lu ci lu loo ci xool rek dafay am maanaam laa ilaha illahu mbaa mu am maanaam muhammadu rasulullah mu mel ni kon nekk bi mu nekk abdullah wa xadimu rasulihi lépp lu ñu gis ñun ci ay may di ko di ko suñu borom may ci ñaari garab yooyu la meññ lépp lu ñuy séentu ëllëg ci ak ramoom ak njariñam ëllëg ak yaakaar bu ñu fi yaakaar lépp lañu ciy séntu rek meññetum garabug laa ilaha illallahu la waa garabug muhammad rasulullah ñaari garab yooyu ci la meññee ni nga xamee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam miy wasilaam lépp luy njariñ lu mu andi ci àdduna lépp luy njariñ lu ñuy séntu ci moom ëllëg ñu ngi bàyyi ko ci nekk bu nekk muhammad nekk bu nekk rasulullah abdullahi wa rasuluhu nekk bu nekk di jaam bi yàlla di ab di ndawam lépp lu ñuy séntu ci Sëriñ Tuubaa ci ñaari baat yi la bàyyi ko muy nekk Abdullahi nekk it Xadim Rasul bi loolu amee nag mu fab lépp lépp léppam rek tënku ci ñaari baat yooyu kon war nañoo jàngat lan mooy ibaadatu ko mu jublu junj jaamu jaamu yàlla boobu Abdullahi lan la ak lan mooy Xadim Rasulullah ak ñu seet ñun nan lañu ci jariñu ginnaaw bu sëriñ bi doonee lam doon ba noppi ñun ñu ñëw di ay taalibe te li mu am lépp fii la ko jële léegi ñun kon nan la ñuy def lan mooy loolu ak nan lañ cee doxal loolu ma taxam la mu mel ni kon abdullahi mi ngi baat bi mi ngi jóge ci al ibada ibada nag mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy dayo bi tax suñu borom bind mbindeef yi mooy dayo bi tax suñu borom bind mbindeef yow maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne ndara ngir bëgguñu jaamu mel ni kon jaamu googu jamono bu nit ki bi mu amee tawféex yi gëm suñu borom war nay gëstu jaamu googu mooy lan ak nan la ko def jaamu mooy toroxlu toroxlu mokk gu mat sëkk luñ si yàlla ibaada mokk gu mat sëkk am na benn borom xam bu ñuy wax az-Zamakhshari wax na ni jaamu mooy toroxlu gu mat sëkk yemukaayu toroxlu ba tax sax ci jaamu yàlla rek la ñuy jëfandikoo baatu ko ibaada ndax mooy toroxlu gu mat sëkk am na benn borom xam bu koy xam le ni al ibaada taatun tawiya ak ak topp lay doon boo xam ni da ngay coobarew bi nga koy def mamzujatun bi mahabbatin qalbiya waaye bi nga koy defit dafay ànd ak nga bëgg ko ci sa xol ba ci jaamu goo xam ni coobarewu nga xam ne du du du dañu la caa forcé lu mel ni loi bu état bi tëral rek ni def leen bi ku ko deful police nga ne taxaw nga di ko def loolu du façon jaamu gi gi ñu bëgg jaam bi doxalee ko diggante sama borom day bëgg mu doon loo xam ne dañuy coobarew dañ la koy wax bàyyi la nga dem libre nga tëju sa kër tëju sa néeg ak yàlla képp ngeen nekk nga def ko ci coobarew ak jaamu jaamu yàlla gi suñu borom bëgg ci coobarew mooy loo xam ni du caageen sax da nga da ngay wax ni nit ñaa ngi nii su ma ko deful kii am na maa jàpp ni mbaa su ma ko deful nii mbaa su ma ko deful laa am loolu looy xalaat ci ñaam loo ci ragal loolu sax boobaa du du du coobarew fi mu toll coobarewul dëgg nit ñëpp buñ maase woon bàyyi it yow da ngay continuer dox buñ maase woon bàyyi it yow da ngay continuer di dox loolu mooy al ibada taatun tawiya mamzujatun bi mahabbatin qalbiya asaasuha maarifatun yaqiniya te li koy li koy fonde it mooy xam ak xama koy fonde waaye ba ci bu fekkee ni sax léegi dafa am ku jiit rek ñëw leen ñëpp gëmu topp ci ginnaawam sax loolu gisu ko tuddee ibada jaamu yàlla gisuñu borom bëgg duggoo ko du koo xam da ngay gurgur nit ñi rek ne aji dem leen dem leen julli ñu dem julli dem leen woor ñu dem woor ñu leen sikar leen lii ñu sikar ko déedéet da nga leen di xamal lan mooy julli lan mooy woor lan mooy sikar jaamu yàlla gu ne nga xamal ko la muy takki ba mu gëm ko ci xolam bëggal ko boppam ndax dag boo defee saa bu demee ba wér di ko def rek mi ngi jaamu yàlla loolu mooy asaasuha maarifatun yaqini kon ñett yooyu ñooy dëgg dëgg jaamu giñ son muy ak topp lay doon goo xam ni dangaa coobarewu li ko toppee waaye kenn forcé wu la ci bi nga koy def it danga ci am bànneexu xol boo koy def mu naqari la du jàmm la nga ca des la ca desin mooy ak xama koy lal waaye du doon loo xam dañ lay góorgóorlu rek ni la gëmal def nga gëmul di ko def ñett yooyu saa bu bu manqué rek jaamu gi manqué la sëriñ bi sëñ Saliou wax na benn bis ñuy waxtaan ma di ko sant ci liggéeyub Serigne Touba bi ma woo mu ni ma sëb cër daf ca nekk ndax ka ca ab cëram nekkul du ci yëngutu mbaa boo ciy yëngutu it du ko neex waaye saa boo ciy yëngutu ba noppi mu neex la na nga xam ne sëb cër ci nekk waaw loolu kon wax na ma ko waaye murid yëpp ko moom waaw muy ko ca ab cëram nekkul du ci yëngutu mbaa bu ca yëngutu it du ko neex waaye saa boo ciy yëngutu ba noppi mu neex la na nga xam ne da nga ci amul cër jaamu di maqaama mu kawe moo xam ni taraa ngay taraa ngay jaam bi la ndax ndax ci misaal rek saa buñ ne kii nangamu Sëriñ Saliou la buñ ne kii doomi Sëriñ Tuubaa waa ñu ne kii mooy bëkk nem Sëriñ Tuubaa bi sa si waa ñu ne kii mooy na nangamu Sëriñ Tuubaa bu ñu wax rek kooku taraa nga la ci jëmm jooju moo tax nit ki saa bu fabee boppam wéer ko ci yàlla ñu ne Abdullahi la léegi teraanga féetewut kaw loolu fi mu toll teraanga féetewut kaw nga doon jaamu yàlla te loolu misaal mi ci kenn du misaal la yàlla dara waaye misaal mi ñu ci joxe rek mooy président ku ne xam ni mu toll waaye nangamu président bi sus ci moom rëkk rek am na lu muy tekki am na lu muy tekki ak fukk nit ñi teg ci seen xol ak yëg-yëg buñ ciy am ca saase buñ ne kii nangamu président bi la mu sis ci moom rek walillaahi masul ala yàlla kenn ku misal dara waaye nag kon alhamdulilahi laaju lu wax ni bu ñu ko waxee nit ki wéer jëmmam ci jëmm yàlla rek taraa nga féetewul kaw la moo tax xam ne benn benn sofi bu wax suñu borom ni ko laa tad'uni illa bi yaa abdu bu ma wooyee lu dul ni ma yaa abdu ha fa innahu ashrafu asmaa'i ndax mooy bi gën a tedd ci sama tur mooy nga ni ma yaa abdu borom xam yi di wax ne yonte bi maqaama yi gën a tedd ci ay maqaamam baatu ko abdu la ko fi suñu borom wooyee ndax ñetti maqaamaa ngi nii yoo xam ne bu ci ne maqaam bu rëy la mooy bi muy wàccee alquran ci man dani alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab kooku abdu la ko tudde bi ci des mooy bi mu ko jëlee muy rañaan rañaan gi nga xam ne bi mu demee ci la ko jox julli yi gën a julli yi juróom te mooy li mu gën a fonk ci jàmm yàlla ginnaaw boo seeree ñaari baati foofu subhaanalladi asra bi abdihi la ko tudde ba ca des mooy fi yonente bi taxawee di ñaan yàlla mu ni fa innahu wa innahu lamma qaama abdullahi yadoo ñu ni maqaama yooyu ñooy yi gën a kawe ci diggante yàlla ak yonente bi te foofu abdu la ko fi yàlla wooye kon ñu xam baatu abdullahi li muy tekki wa xadimu rasul lu ci ne rek maqaam mu kawe la muy wéeru gi mu wéeru ci yàlla maqaam mu kawe la wa xadimu rasul bi maqaam mu kawe la ci ñaari misaal misaal yi ma joxoon léegi nii bu ko defee nag jaamu jaamu kooku nag bala mu mën a am wala boog sax mi ngi tàmbalee ci pas-pasu xol nga gëm nekkug yàlla gëm ak wéetam gëm kàttanam gëm ak mënam gëm wërs mooy wërsëgal nit ñi gëm ni moo leen di xañ gëm ni moom rek a mënal ñëpp dara rek mën la ko dara gëm ni moom rek mooy ki nga xam ne ñëpp aajowoo nañ jëm ci moom te mu ayibul jëm ci kenn al uluhiya li muy tekki mooy koo xam ni ñëpp itteewoo nañ ko te moom itteewul kenn ci yàlla képp la la kon ngëm ci tawhid islam nag bu ñu ko waxee wommatu lay tekki wommatu mooy dangaa ñëw ci société déposé say dossiers yi bañ ne la jël nañ la nga ni d'accord waaye nag doxagoo meetal ndax tàmbali ko liggéey léegi nag dañ lay rëddal ni la defal lii nga di ca xëy loolu mooy islam fokk bi nga ñëwee ni laa ilaha illallah muhammadun rasulullah dafa am lu ay wax la waaye jëfa googu jëf ji nag mooy la mu la rëddal ni la jaaral fii nga dem di ca xëy di ca gon ba tax am na ku ñëw ci sëriñ bi ni dafa ñëw ngir jëbbul si sëriñ bi ni ko ana loo ci jublu mu ne ko xanaa nag bëgg laa jëbbal sama bopp rek loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi sëriñ bi ne nañu woo fere fere yi fi nekk ñu ñëw ñu woo ñu woo ña fa teewoon ci ay mul yëpp ñu teew mu ne ko waxaatal li nga waxoon mu ne ko damaa wax ne damaa ñëw ngir jëbbale sama bopp loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi sëriñ bi ne ko dama bëgg nga xam ne jëbbalu day wax rek la boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jëfee jàpp nanu ko kon liimaan ay wax la waaye lislaam moo koy firnde léegi ibaada gi ñu doon wax rek laa jublu mu leer ci lan mooy alhamdulilahi wa xadimu rasuli ñu xam ni liimaan moo ci jëkk ay wax la ak pas-pasu xol da nga ko fas ci sa xol wax ci sa làmmiñ waaye dafa am lu koy firndeel la la koy firndeel mooy lislaam loolu sëriñ bi wax ni dama bëgg nga xam ne jëbbul ay wax boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jëfee jàpp nanu ko lixsaan mooy martaba bi bi ci gën a kawe mooy ñaar yooyu nga rafetal leen liimaan gi na rafet lislaam gi it rafet loolu la ñuy tuddee ihsaan ñetti tomb yooyu ñooy arkaan diin ñett yooyu la sëriñ bi taalif taalif yi téereem boobu ñu tuddee tasawul sixaar bu ci ne mu mu détaillé ko ihsaan boobu nga xam ne nag maanaam ci la tasawuf di dund yonente ba mu koy xamle dañ ko wax ne ko lan mooy al ihsaan dafa wax ne mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom ku ne xam na ni war ma ji dama daan wax ni jamono bu ne nit ñi luñ def ñoo ko tey ndax ci misaal ab daayira bu masaan jóge Ndakaar jëm si Sine Saloum jigéen ñi dañuy muur doon ay jullit yu kenn du nattal te lu ci ëpp bu ñu weesuwaatee njariñ dindi muraay te loolu nga xam ni kon day mel ni loolu li sëñ bay jaxate wax naan nit ñëpp xam nañu wépp yiw xam wépp ay koo gis mi ngi ko xam-xamam dafa lot daal kenn réeratul tey ngir ma ñëpp ko xam bu wér koo gis doxul dafa jox mbiram seytaane daal loolu mooy leer waaw waaye daanaka li yàlla soxla nii jullit bi bu xasee ñëw ba ni ab jullit la rek la gën a ñor ci lu mu soxla xam na li gën a ñor ci lu yàlla soxla jullit bi bi mu doonee jullit jërul sax muy xóot la am jàng li gën a ñor ci lim soxla jullit bu doon ab jullit rek na mu xam ci sax
Yeah.